أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al araf ci kàttanu borom bi tey noo ngi jël ñeenti aaya muy aaya 109 110 111 112 ñeenti aaya di ñu jàngal juróomi mbir yooyu ba ca jiitu mooy jahlul mala bil aayaat wa adda bihim ila an qaalu inna muusa saahirun alim danañ jàng tey réer gi nga xam ne la waroon firawna réeroon na ko ci ñooñu yàlla naan mala benn gang boo xam ne ñoo waroon firawna ñoo ko teree tuub ñoo ko sànk ñooñu ba firawna laajee laaj ya mu war a laaj Musa tontu ko ci ay dalil yu leer yu ne weŋ mbooloo ma ko waroon ñoom ñoo sànk firawna lu tax ndax ñoom ñoo ne ko inna Musa saahirun alim ki kat njabarkat la te expert la ci njabarkat bi boroom xam-xam la ci bi Firawna tiitee xam ne li du mbirum doomu aadama ndax lu mel nii walla ku mel nii musu koo dégg lu mel nii musu koo gis moom bi mu leen laajee rapidement rek buñ ko ne woon dëgg-dëgg kii kat ab yonent la yàllaa ko yónni kon Firawna dana tuub dana tuubloo peuple bi waaye ñooñu ba ñu réeree dañoo dugal firaaw na ci giraawaali ndax ñoom ñoo ko orienté ci njabarkat yi ñoo ko ne kii njabarkat la loolu loo ci dégg mooy njiit ku jiite foo mën a nekk yal na la yàlla may ñu baax ñu la wër ñoo xam ne booy diisoog ñoom danañ la teg ci yoon moo tax Omar ibnu Abdul Aziz bi mu faloo bokk na ci ministre yi mu utoon benn ministre boo xam ne day toog ci ginnaawam rek soo waxee ba ci àgg rek waa ji daal di jël ñaari loxoom dóor ko ci ginnaawam su Omar gestoo mu ne ko ragalal yàlla kooku loolu dong moo doon fonction dafa baax ci njiit bu dee ab directeur société la bu dee imam la bu dee chef de quartier la bu dee président la bu dee roi la lu mu mën a nekk nga am ñu la wër ñu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla bu nammalee buur jàmm da koy may entourage bu baax buur président bu ko yàlla nammalee jàmm yàlla da koy may ñu ko wër ñu baax ay dag yu baax da ngay dégg sax kàddu olof yi ñu naan buur aayul dag yaay lu ëpp mooy buur du bon lu ëpp mais ñan ñooy bon mooy ñu ko wër ndax yenn saa yi sax mu jël décision bëgg a def lu baax ñu ne ko mo jaru ko de ñu de jaru ñoo defal lu baax dóoral rek su ko defee bu leen déggalee nag musiba am Firawna loolu moo ko dal mooy jahlul mala bil ayat mbooloo ma ko waroon ba Muusa ñëwee ànd ak rakkam ne yàllaa ma yónni Firaaw ne ko kuy sa borom mu ne ko mooy borom asamaan ak suuf inni rasulun min rabbil alamin man de ndaw laa lu bàyyeekoo ci yàlla moo ma yónni ca lay dëgg mooy man waruma waxal yàlla lu dul dëgg te indil naa leen ay preuve yu leer yu bàyyeekoo ci seen borom yu wane ne yàllaa ma yónni ne ko léegi loo bëgg mu ne nga libéré peuple bi ñu ànd ak man dem jaamu ji yàlla ma delloo leen seen suufu maam ca Syrie te maa ngi lay wax ne li ma la indil ay aaya yu leer la mu ne ko aaya yi lan la mu sànni loxo bi mu dugal loxo bi ci biir poos bi génne ko mu am lumière mu sànni yat bi mu nekk ab jaan loolu lan moo ca waroon mooy ñoom ñëpp ñu daal di sujjóot comme na njabarkat ya defoon war a def waaye déedéet dañ ko ne kii am njabarkat la loolu mooy lu njëkk lu ñuy jàng mooy ña ko waroon dañoo réer moo tax ñu réeral ko ñaareel bi mooy makrul mala ba tey entourage boobu ñoom ñoo def pexe yi sànk firawna ñoo ko sànk makrul mala wa xubsihim is ittahamu muusa siyaasiyan yéen jóg leen ngeen yéeg ci kaw yéen ñoo ñu tëdd foofu jóg leen yéeg leen ci kaw su ngeen tëdd yéeg leen ci kaw ku bëgg a tëdd rek ne yéeg ci kaw ci kaw am na place ngeen bàyyi espace bi ak ñi tafsir makrul mala ñooñ ñu naan mala gangoogu seen mbon gi ñu bon ñoo sànq firawna ndax ñoo ko indil ay pexe pexe ya lan la ñoo ko tuumaal ñu ne Moussa politicien la gis nga loolu ñu adressé woon Moussa tey ba tey fii nu toog ci kaw suuf képp koo xam ne yaa ngi wax ci lislaam rek président ak li ko wër lan lay tuumaal ne suuf si nga bëgg a jël gouvernement bi nga bëgg a nangu dañ lay wax ne yow politicien nga Moussa bi mu ne Firawna libéral peuple bi bàyyil ma ànd ak ñoom ñu jaamu ji suñu borom rek automatiquement ña waroon Moussa ñoo tuumaal Moussa ni ko gis nga kii politicien bu mag la sa turon bi la bëgg a jël siège bi ngay toog la bëgg a toog bi annahu yuridul mulk ñu ne ko nguur gi la bëgg te xam ngeen wax wa kasb lii fen la Moussa ay nguur yi teelu ko mbokk yi nitu yàlla li muy am moo ëpp nguur xoolal tey buñ ko doon misaal rek ci Sénégal li Cheikh Ahmad Bamba am est-ce que soxla na nguur li Alaaji Maalik am est-ce que soxla na nguur soxlawu ko bal sax politiciens yi bu ñu leen falee fu ñuy njëkk a daw dem ci ñoom kon ku ànd ak yàlla yow doo soxla nguur loo koy doyee boo toogee yàlla dina taxañ nguur géeg lépp indil la ko ci sa biir kër moo tax àdduna yàqu ban gisee sëriñ si di dem ci buur yi suñ demee ci benn téere bu tudd Fathul Manaan Cheikh Ahmad Bamba moo ko bind day wax borom xam-xam ci buntu këru buur mu ngi mel ne weñ wu takk ci dem àll ba xam ngeen weñ bu tegee ci dem àll ba noonu la borom xam-xam mel bu demee pale yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ne ñaari nit bu ñu baaxee àddina baax bu ñu yàqoo àdduna yàqu sinfaan min ummati yi iza salahu salaha annaas wa iza fasadu fasada annaas al umara wal fuqaha ñaar ci xeet wi bu ñu baaxee rek àdduna jag bu ñu bonee àdduna jàqu ñeneen ñan mooy na njiit yi njiiti àddina yi ak njiiti diine yi politiciens yi ak sëriñ si yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na al ulama warasatul anbiya ma lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunya fa ida xaalatu sultaan wa daaxalu dunya faqad xaanu rusulu jamian fahzaruhum yonent bi nee na boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi feek bëgguñu nguur feek bëgguñu àdduna boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi waaye feek jaxasoowu ñoo nguur bëgguñu àdduna su la borom xam-xam gënee bëgg àdduna ay kër yu nekk ci wetu géej ay cinquante jabar ay ay ay ay ay ay bu yeboo nga bàyyi ko borom xam-xam boo gis muy jaxasoo nguur gi bu yeboo nga teg ko ci suuf ndax dootul daganal lu yàlla daganal dootul araamal lu yàlla araamal lu gouvernement bi bëgg mu ne baax na gis nga barki démb bii di Seck waxee rek. borom xam-xam yi wër gouvernement yëpp dañoo jóg di attaqué Idriss Seck parce que yàlla taxul dafa am lu nekk ci ginnaaw naa naa bombardé waa ji ndax waa ji kontaan ci man léegi day dem ba yàlla datoo tax nga wax ngeen defa ne waa ji li mu wax amul ñu gën a garaaw ñu ko lu ñu wax fii fii te kenn waxu leen dara am leen di laaj rek ngir yàlla lu tax ñooñu kenn waxu leen dara c'est parce que ñooñu bëgguñu bëgguñu bëgguñu sées bi rek kenn du leen tontu chaque jour ngeen dégg ku taxaw ci dëkk bi wax lu wax benn catastrophe benn bombe bëm mais kenn du ko wax dara mais comme kii moom xam nañ ne dafa bëgg nguur gi sànq nañ Karim Wade sànq nañ Khalifa Sall te moom ci la war a bokk ñu ne lii occasion la pour ñu sànq ko moom it su ko defee affaire bi gën a leer rek espace bi di gën a leer rek kenn dong des fi leer na suñu problème moo tax chaque jour boroom xam-xam na def attention ndax saa yoo waxee dañ naan kii gouvernement bi nguur gi la bëgg a jël bu dee jamono tey nag dañ naan kii terroriste la bam nañ lay jàpp rek dugal ci kaso bi denc la terroriste nga terminé kenn du wax tey danger bi gën a dal ci jullit ci àdduna mooy terroriste la damay seetaan léegi France 24 télévision boobu ñoo gën a naafiq ci àddina bi non wallahi al azim tey moom dama ci am ay firnde yu leer dama doon wax ne ñii ñu bon lañ mais tey dafa leer Belgique benn attentat moo fa am léegi ci ay 11 heures midi benn waaye bu ñu tëjoon démb kaso dañ ko tëjoon fan yii yëpp ñu libéré ko démb pour may ko mu noppalu après dañu war a defar ay këyitam pour dañ ko war a libéré wala duñ ko libéré léegi ñu bàyyi ko démb lañ ko bàyyi démb démb lañ ko bàyyi. waa ji tey ci suba waa ji tey ci suba mu jóg. dem dem fekk police yi ci circulation yi mu jam benn police bi mu daanu mu jël pistolet eggali ko rey keneen ki rey keneen police yi ñëw rey ko waaye xam nga France 24 bi ñuy joxe information lu ñu joxe bi muy rey gars yi da wax allahu akbar allahu akbar dégg nga luñ bëgg a wax. te waa ji waxul benn allahu akbar waa ji bañ na ko sax ba benn jamais la tudd tudd du co yoru sax tur jullit. du sax jullit du sax ay problème mu jullit islam moo tax bandi la woon trafiquant drogue ku doon rey ay nit ñu jàpp ko démb lañ ko libéré pour may ko su ngeen demee ngeen dégluwaat information yi mais bi ma xoolal damaa mer rek ba àndal sama sama chaîne di déglu TV5 ñooñu ñu ne amul benn relation sax ak terrorisme mais xoolal il faut ñu taqal ci jullit yi waa ji du sax ab jullit su fekkoon ne sax dafa tudd Moustapha wala Mohamed wala Abdallah ñu ne jullit la kon dafa def attentat mais du jullit mais il fallait que France ñoo gën a bon ci àdduna bi ci gouvernement yi nekk ci àdduna bi tey ak ka ñoo bañ lislaam ak ka ñoo bañ lislaam amuñ ci sax lu ñuy négocier mbokk yi il faut ñu comprendre bu baax tey àdduna bi nu muy doxee tey bokk na ci li ñuy jàng mooy makrul mala wa xubusihim ñooñu ñu naan gang ñooñu ñu naan entourage président chaque jour nga dégg ko fii ci Sénégal ñu naan président bonul mais entourage bee bon kon kay entourage bi bu bonee na président sàkk ut ay pexe sinon dañ koy yàqal lu tax ndax la waroon firawna keroog ba Moussa ñëwee ne yàllaa ma yónni firawna am sikki sàkk buñ ko ne woon dëgg la rek mu dem waaye liñ ko def mooy gang googu ñoo ñu naan mala ñoom ñoo ko tuumaal ne ko kii kat politicien la kii kat ab politicien la firaw ne leen ah kon lan la bëgg ñu ne ko yuriidu la mu namm day mooy almulk nguur gi la bëgg te wa huwa kasbun xam ngeen ne loolu ay fen la moom Moussa lan moo ko tax a jóg mooy ixraaju bani israil ñoom ñooy continuer ba tey di wax ñu ne Moussa li ko tax a jóg mooy ixraaju bani israil min misra dafa bëgg a génn égyptiens yi biir égypte te loolu mooy dëgg nag loolu sax moo ko tax a jóg dafa ñëw pour libérer peuple bi pour génne leen égypte delloo leen syrie xaysu taala is ti baaduhum ndax seen jaamu gi leen firaaw na teg dafa yàgg nattu bi leen yàlla nattu dafa yàgg ci copte yi te wahum abnaul anbiya wa ahfadihim te ñoom ay doomu yonent lañ ak seeni sët kon ay doomu yonent waruñoo nekk ay jaam te firaaw na daf leen def ay jaam di leen liggéeyloo te doomi yonent yi ak seeni sët waruñoo nekk ay jaam ndax ñoom banu israil sëti isxaaqa lañ ak sëti yaqub kon waruñoo nekk ay jaam moo tax Moussa ñëw pour libérer leen ñetteel mooy fadixatu firawna mooy toroxu firawna ak gàcceem firawna dana woon mooy yàlla taxaw ci digg Égypte ne maay yàlla ku ma déggati fi nga ni maay yàlla danaa la rey comme tey niñ koy gisee ci Sénégal nit taxaw ne maay yàlla wala ñun ay yàlla lañ wala suñu tarixa bi yàlla la xay su nasiya moom firawna dafa fàtte daawaahu rububiya ba mu taxawee mu ne ana rabbukumul aala kañ la fàtte loolu mooy ba ko Moussa dikkalee la mu njëkk a def mooy woo mbooloo moom ne leen kaay leen ngeen xool lu ñuy def di diisoog ñoom yàlla dina diisoo ah fastasaaral mala fi saanihi ba ko Moussa ne yàllaa ma yónni rek dafa woo gàngoogu ne leen kaay leen ñu seet lu ñuy def yàlla dina diisoo kon moom du yàlla dafay fen is ar rabbul haq la yastashir yàlla du diisoo yàlla moom lu mu bugg a def daf koy def te su ko defee ba pare kenn du ko laaj lu tax nga def ko faalun lima yurid yàlla laa yusal amma yafal kenn du ko laaj lu tax nga def nangam ma ngeen gis ko taxaw naan yàlla lu tax mu def lii xanaa ko amul iman ku xamul lan mooy diine moom mooy fekk yàlla def dara mu ne lu tax yàlla def lii comme ni ngeen koy gisee lenn ci sunuy dëj léeg-léeg nga gis ku dee nga gis nit ñi ñëw di bërëngu daan waaye lu tax yàlla nga rey ko waaye lu tax nga rey ko waaye lu tax nga def nangam comme ni ngeen koy gisee noonu xanaa loolu ku amul imaan mooy def loolu. kon bokk na ci li ñuy jàng tey gàcceel gi yàlla gàcceel firawna muy dund mu taxaw ne maay yàlla mu am jafe-jafe. di ci laaj nit ñi seeni xalaat di laaj di ut ku ko dimbali yàlla dëgg jalla jalaaluhu aza kamaaluhu du diisoo ak ay jaamam yàlla lu mu bëgg a def def ko ndax yàlla moom xam na li war a am xam na li xew tey xam na li xew suba loolu dañ koy jàng tey danañ jàng beneen as-sihru sanaa ak njabar dañ koy def dañ koy liggéey mina sannaat njabar métier la comme yeneen métier yi yu taallam dañ koy jàng te sax wa yubra'u fiha almat nit day dem ba nekk ci ponkal nga dégg ñu ne wuu kanko ku ko dul makko memata leydi kanko kuɗol makko memata leydi wona ko noon mbiyaton ha moom xalimam du laal suuf si a tëtt moom xalima bi dafa garaaw moom lu mu bind rek day am dam ngay dégg boo nekkee njabar ka dëgg doo dugg ci projet bu sottiwut tey nag njabar googu néew na ku ci mucc néew na ku ci mucc genn wàllu ñi jàng alquran yëpp genn wàll gi ay njabarkat lañ ñi ci ëpp ay njabarkat lañ lu tax parce que dañuy jàng ba pare du ñu nangu defi dara yaakaar nañ ne ku jàng alquran warul liggéey warul warul def benn du def dara moo tax fu ñuy mujj jamb seen daa rek nit ñi rang leen waaw li gën a dangereux nag dañ naan man alxuraan laay laay laay laay liggéeyee alxuraan laay ñaanee fekk du dëgg ay njabarkat lañ soo ñëwee lu ñu leen njëkk a wax mooy noo tudd képp koo dem mu ne la noo tudd njabarkat la képp koo dem mu def ànd di ci def cuuraay njabarkat la képp koo dem mu ne la jëlal kurus bi jàppal benn per njabarkat la noonu la ñuy xàmmee njabarkat képp koo dem mu def ay ay kii ci suuf ay tomb wala mu ne la petaaw yi jël ci benn kooku njabarkat la kon ak njabar dañ koy jàng léeg-léeg nga gis ku ko jàng sax ba raw loolu tax kilifa yu bëree bëri dañu am ay njabarkat seen ay pantere seen kër léeg-léeg sax nga dégg ñu naan ah pale day def benn waaye lañ fa indi temps yi am na ci Sénégal xam nga président yi ay xarit lañ président yi bu élection jotee wala ñu soxla dara dañuy téléphonante tol ma fa benn njabarkat waay nga gis ñu jëlee njabarkat Niger indi ko Sénégal wala jëlee Sénégal ni njabarkat yóbbu ko wala jëlee njabarkat Guinée yóbbu ko nii la ñuy defante ci Sénégal am na fi ñoo xam ne ci loolu lañ amee woon alal nekk ay milliardaire njabar kese njabar ak kéeféer la ci lislaam lan mooy dalil bi dama ci ginnaaw wala nga ñëw toog fii lan mooy dalil ne njabarkat ak njabar ak kéeféer la mooy yàlla moo ko wax yàlla moo ne ak njabar ak kéeféer la wa ma kafara walakin shayatin lu tax yuallimuna annasa sihra wa ma kafara suleyman déedéet bu leen wax suleyman dafa weddi de suleyman weddiwul ñan ñoo wedd walakin shayatina kafaru seytaane yi àndoon ak moom ñoo weddi lu tax ndax yu allimuna naasa sihra ñoom ñooy jàngal nit ñi njabar moo tax njabarkat ay jinne lay àndal waaw yor naa sama portable benn waa joo xam ne dafa taxaw def ay geste julli jullil seytaane mu pare bu mu pare bu mu nee nii mbax ne bi moo njëkk a naaw ci suuf ñoo solal boppam mbax ne bi mu ne nii mbub mi naaw ne kërëj kërëj mu dugal loxo yi mu ne nii àlliwe bi naaw mu ne nii kurus gi naaw kurus gi nag moom buñ ko xëccee dina dem fii ba àllu géej mu ne nii feuilles yi ñëw ñetti feuilles tegal loolu jinne moo koy def njabarkat dëgg day ànd ak jinne waaye nan ngay def ba am jinne ngeen di liggéey yéen ñaar mooy pacte da ngay signé ak moom benn pacte pacte bi lan la da ngay bàyyi benn ponk ci ponk lislaam yi moo tax di nga gis kilifa diine boo xam du dem màkk moom mën na yóbbu nit ñi mais moom du dem gis nga ñu naa waaw moom lu tax du dem du dem de wala du julli wala dina julli waxtu yi waaye am na waxtu bu muy bàyyi waxtu bu nekk dinañ ko gis muy julli mais am na benn boo xam du ñëw wala dina julli waaye du ànd ak njàpp day ñëw rek giite nit ñi te du am njàpp wala du sangu janaaba benn jigéen nee na ma man dama am problème ma ne ko luy sa problème téléphone mu ne ma dama amoon benn waaye bu ma nobanteel bi ma nobanteeg waa ji ma dem ci sëriñ bi na ma ñaanal waruma wax sëriñ sax ma dem ci buxaaba bi na ma ñaanal mu xërëm ma takk ma ma bàyyi waa ji gis nga ah parce que ñoom ñooy dem ñoom ñooy dem foofu mu ne deuxième bi am na benn waay boo xam ne fi la daan ñëw tafsir fii jabaram moom tamit noonu la ko pertee benn waay moo ko tas takk ko kooku jabarkat la bu xaaba la waa ji nee na ndaw si nee na man li ma gën a jommal ci waa ji mooy du sangu set te fanaanoog man du sangu te bu julli jotee mu jóg julli te man leer na ma ne kii sanguwul tey ndaw si moom ko wax ma ne ko léegi nag maa man kay xaw ma nu may def ba génn ci lii da kaa xërëm ba ndaw si ne kaj benn place moo tax il faut ngeen def attention keneen waaw takkusaan dañuy bàyyi takkusaan bëgguma woon wax julli bi dañuy bàyyi benn julli ci julli yi wala bu dee da nga am mbooloo da ngay jiite ñu ne la da ngay saw fi ngay jullee fi imaam bi di nekk ñu ne la nga saw wala nga jël kaamil sol ko ay dàll dugg ak moom duus nga jël kaamil takk ko ci sa tànk comme daal ñaari kaamil nga dugg ak moom biir duus wala nga jël règle règle lu jigéen dret nga binde ko fatiha wala ayatul kursi yooyu ay pacte la ñuy def pour am jinne soo ko defee nag nga jël turu jinne bi di ko wirdu jinne bi ñëw ngeen signé yeen ñaar roofoo loo bëgg mu def ko mu def ko soo toogee nii ne nii xaas ñëw nga ne nii gars yi naan allahu akbar soo jëlee sa kurus ne nii ndox di sotteeku boo tegee fee mbax na bi ne ar mu ñëw benn waaye da ko doon def ci benn fu daan am gàmmu gàmmu su ñëwee nit ñi di ko teeru rek day su mi fële dàll yi mu ñëw toog ne pare de nga de dàll yi ñëw léegi nit ñi bu événement boobu jotee nit ñi dootuñu ñëw seetaan si gàmmu gi mais lan la ñuy seetaan si mooy waa ji li muy def benn année mu ñëw si mi daal yi toog ñëpp affaire bi mu ne daal yi ñëw leen rek benn waaye ne daal yi yem leen foofu daal yi taxaw borom tawxid seytaane ñemewul tawxid ñu ëpp ci nit ñi ñu naan ay kéemtaan lañ am ay nangam lañ am njabar kese ay njabarkat lañ même même doomu aadama yi ngeen gis ni léegi am na ñoo xam ne ama topp gi ñu lay topp du seen sago da ngay gis jigéen bu topp góor comme xaj ni muy toppee nit du sagoom rek am na lu ñu ko def nga gis nit sax nit nit ku topp benn nit nga gis taalibe bu topp sëriñ fekk xamul sax lan la xoola ki ngay dajee ci mbedd mu nuyu la ne la jox ma li sa poos nga jox ko ba pare lépp ba pare mu dugg oto ngay dogo sama benn yaay fii ci koñ bi fii kii xam na ko xam ngeen daara tukulóor yu ngand yooyu nga xam ne dañ koy def gis nga yooyu ba pare ña kii ko laxas ko kii xonk yi fii la wàcce oto rek benn waaye nuyu ko ne ko meer kaay yóbbu ko ba marché njaareem teg ko fenn jënd lañ set dagg wëñ yu xonk yooyu jaaro yi nga xam ne nu mu ngande nga xam ne tëgg rek moo waaye jël tanaaj képp yaatal ko ba jël ñaari jaaro yëpp jox ko cent franc dugal ko oto ne ko dama nga ñibbi maire bi ñëw ba yegg si fii xamul kër gi xamul koñ bi fii ci stade bi la wàcc xamul fu mu dëkk di tëñëx tëñëxi ba am ko ko ne waa yow diwul lan la mu ne sama dama réer di sama kër kooku jël ko yow maire bi feebar na cinq jours dañ ko bëgg jë indi naan naa ko ñaanal cinq jours mu feebar ndax tiit am na lu ñu ko def ba ñu mën a ñëw dagg jaaro yóbbu ko jaaro yoo xam ne buñ ko ci dugal coono la buñ koy génne coono la mais waa ji facilement la ko yóbbee di ko yóbbu mars njaaram teg ko ci benn place dindi ko ne ko demal nga ñëw jox ko 100 francs dugal ko kalandoo tey loolu daa bëri ci dëkk bi njabar ak a bëri ñu bëri tey ci njabar la ñuy dund soo waxee ñu ne dañuy ñaanalaate njabar ak kéeféer la yàllaa ko wax wa ma kafara suleyman walakin shayatina kafaru yuallimuuna annaasa alsixra wa ma unzila ala almalakayni bi babila haaruta wa maarut wa ma yuallimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur gis nga bul weddi yàlla de ñun ñun ay yéeféer lañ seytaane yooyu ñaari malaaka yooyu duñ la jàngal njabar lu dul dana ne bul weddi yàlla ndax njabar weddi yàlla la du hasard soo bëggee am jinne loolu kese la da ngay weddi yàlla rek nga am jinne saa yoo weddee yàlla nga signé ak te ñoom benn pacte am na am na ci koo xam ne moom mbooloo mi mu amoon mbooloo mi kenn du togg bu lekk yi jotee rek dañuy indi bool yi teg su jëlee kurus gi wax rek bool yi fees dell ak lekk gaa yi jël di yuuxu xam nga gaa yi nga xam ne moom dañoo bëgg ndambe ñu jël ak yuuxu di lekk góor gi daal di faatu biñ ko bi mu deewee biñ ko sangee ba def ko ci kees gi lan mooy mbetteel mooy biñ ko bëggee yóbbu suuli ko kees gi daa jóg taxaw tiim nit ñi di yóbbu boppam ñëpp di yuuxu xam nga tey loolu su amee Sénégal lu ñuy wax kii du kii mooy ngand kii du nit kii jinne la kii damitu malaaka la ñenn ñi ne kii yàlla la wax lay teer ji kees gi daa tiim nit ñi di yóbbu boppam jëm armée la nit ñi topp ci ginnaaw ba ñu yegg fi ñu koy suul teg ñu suul ko ñibbisi doom ji remplacé guddi rek ginn ji ñëw ci doom ji feeñu ko ne ko maa doon liggéey ak sa baay gis nga pouvoir bi mu amoon lekk yi maa ko daan maa ko indi bi mu dee sax gis nga kees gi man maa ko yëkkati léegi yow soo nangoo signé ak man la mu doon def rek ma yokkal la yow lu raw sa papa li mu doon def waa ji nangu waa ji nangu ne ko waaw ñu xëy suba première essence bi tey la waa ji démb la falu tey jii dañoo war a añ ñu indi bool yi la papa ju doon wax jinne bi wax xamal ko waa ji waa ji wax ko booli fees del ak lekk mu ne waaye balaa ngeen a lekk wax leen bismillah gars yi ba ñu raxasoo ne bismillah rek ñu gis ay dem àll bala bool yëpp ay dem àll bala ndeke gars yi ay dem àll bala ñu doon lekk naan oh macha allah ndeke yëpp ay dem àll bala woon rek jinne ji mer nit ñi mer yow xamoo dara yow salwa yow yow tekki woo dos xam nga nit ñi mu ne lan la ñu ne ko yow sa baay daan indi maafe yow ngay indi ay dem àll ba leen sam papa ay jinne la doon liggéeyandool jinne yi ñoo leen leen di lekk yi gis ngeen ba ngeen tuddee turu yàlla rek yëpp yàqu nit ñi doog a yeewu noonu la mel nag ci dëkk bi yëpp li ci ëpp ci ngeen di gis naan ay kiraamaat ay nangam ak nangam ay jinne la jinne mënoo koo am seytaane mënul ànd ak yow lu dul nga weddi yàlla beneen atte bi mooy xurmatu sihr xam nga sànq nee naa leen njabar métier la nit dina ci jàng ba nekk expert waaye dafa aram daa aram liggéey araam jàng araam jàngale kenn amul droit nekk njabarkat ndax njabarkat ci lislaam dañ ko war a rey haddu saahir as sayf te njabarkat du texe ëllëg yowmal qiyaam yàllaa ko wax wala yufrihu saahir haysu ata njabarkat dañ ko war a rey ci islaam beneen bi mooy jàng njabar daa araam jàngale ko dafa araam njabarkat ëllëg du dugg aljanna atteem ci lislaam mooy dañ ko war a dóor jaasi bopp bi dagg tax ndax njabarkat day tas société day tas kër day tàqale ay mbokk day yàq xoolal tey dof yi ngeen di gis fii ñu dof ku leen ku leen liggéey ñenn ñi yenn dof yi ku leen liggéey njabarkat jàpp doomu jàmbur liggéey ko mu dof jàpp jëkkëru jàmbur liggéey ko mu dof jàpp jabaru jàmbur liggéey ko mu dof tey yaakaar naa tësu tey tësu tey dégluwuma ko ba mu jeex dégluwuma ko sax mais ay flash rek laa ci cof damay déglu information ñu ne kii def tës tësu tey lan la mu ne benn waay boo xam ne jabaram daa xëy rek daan ne benn xaritam sama jëkkër dafa dee moom laay jaala ji dem ba léegi kenn xamul fu mu nekk te jëkkër yaa ngi bàyyi ci kër gi sama jëkkër dafa dee dem yoonam te jëkkër ji moom ñaar ñoo fanaandoo mu dem ba léegi kenn xamul fu mu nekk kooku lan moo changé xelam ba mu naan sama jëkkër daa dee te jëkkër jaa ngi nii ah lan moo leen di wan ne njabar dafa dangereux mooy xale yi ngeen di gis ñuy sàcc lan lañ leen di doye ah xale yi buñ leen trouvé lan la ñuy fekk yóbbu seen i cër rey leen yóbbu seen i cër ah néew yi ñuy sulli parce que njabarkat soo xasee ñëw ci moom mu ne la pour nga def lii pour nga am lii foog nga def lii rek da nga koy def te nit dina toll foo xam ne ci njabar xoole ñuy def sacrifice nga ñëw ñu ne la sa yow sa yaram foog nga indi foog nga éliminer ci dara ñu ëpp ci ñoom seen baaraam tànk yu ndaw yi la ñuy dagg moo tax sol kawas rek duñ ko summi mukk xamoon naa ci benn waay boo xamante ne baaraam loxo bi la dagg ba pare bànd ko ah ah ah ah jërëjëf ki maag kii dund na loolu baaraamu loxo bi la dagg bànd ko baaraamu droite bi suy nuyoo gauche lay nuyoo nii lay def nii foo ko fekk mu ne nii nii baaraam bu ndaw bi lay éliminé ñii seeni doom la ñuy joxe seen doom ñii seeni jabar ñii seeni yaay wala ñii seeni pap ndax sacrifice ah allahu akbar am na ci benn théâtre sax bu ñag yi defoon ñu jël liir bi dugal ko ci gënn di ko dëbb seetaanoon ngeen ko kon jaaxle gis ngeen loolu pour lan la pour am alal pour am ndomba tànk pour falu pour pour pour pour balan ilimaan yi sax da ngay gis ilimaan boo xam ne fi muy jiite da koy gas ba mu xóot daal di belende foofu fii de ku fi taxaw di nga dee am na jàkk yoo xamante ne imaam bi day dee kuñ ne kaay nekk imaam mu bañ ah ah jërëjëf kii nee na pikin gi am na fi dem na ba mënatul wax buy xutba sax doo ko dégg ba génn ba dañ koy téye mais kenn ñu ñëw ko remplacer gis nga kenn ki mu njëkk taxaw ci minbar bi keroog bi mu wàccee la tëdd ba ni mu dee
léegi loolu lan la ñu indil njabar yooyu lan la ñu indil mooy bu ñu falee président bala muy dem pale mu ne dajji leen pale bi yëpp karo yi sax dañ koy dajji gas xeer yi def ko ci ay oto suuli bu ñu falee élément benn directeur général fenn wala benn ministre meuble yi chaise yi mu fa fekk table yi du ci laal dara lépp la ñuy génnee dégagé ko xoolal budget boobu fu ñu jëm jigéen ñi sax bu ñuy sëyi da ngay gis ci kër gi carreleur bi bu ñëwee di karo ñu ne ko karo bi teggil ma ko am na benn waay boo xamante ne professeur la professeur fii ci Sénégal ku siiw la dafa dem France tukki jabar ji yónni gardien bi ne ko dama nga jëndam la ginaar mu jënd ginaar ñu indi benn mu indi benn jabarkat ci kër gi balaa waa ji di ñibbisi jabarkat bi di fanaan ci kër gi ñu jël ginaar googu takkal ko xërëm gi ba mu fees ñu gas jardin bi ba mu xóot ñu suul ginaar gi ak xërëm yi bi waa ji wootee téléphone ne suba laay ñëw gardien bi sulli ginaar gi ñu rey ko suqi ko waa ji reere ko bi mu ñëwee guddi waajoo ju tukki woon ginaar gi la reere am na jigéen joo xam ne dafa xërëm jëkkëram pour du am ñaareel kese mu dem ci xërëmkat bi mu ne ko sama jëkkër bu mu génnati bu mu génnati waa ji xërëm jëkkër ji su xëyee suba sangu ba set au lieu mu dugg jël otoom liggéey day tëdd ci salle bi génne journal di lire ñu ne waaw kii lu tax liggéeyatul noonu dara soo ko ne lu tax liggéey mu ne dara day liir ba sonn rek teg journal bi dem ci biir néeg bi tëdd noonu rek la waa ji nekkee ba waa liggéey ba dàq waa ji moom yoonam nekk ci day xëy rek sangu ba pare costume mu ñu defe ne day xëy mu t- mu toog ci saal bi liir journal bu sonnee dem tëdd ndaw si tiit dem ci waa ji ne ko ah yow sama waa ji dematul fenn de mu ne du yaane moon bu mu génn mu ne noo jubluwuma ci woon loolu pour muy dem di doxaan di kii laa waxoon mu ne ah yaane moon bu mu génn léegi nag mu ne ko ah nañ sulli affaire bi ñu jéem koo toj xam nga lan mooy mbetteel fiñ gasoon affaire bi bu ñu ñëwee fekkaatuñ ko fa ñu dajji parking bi yëpp gazon bi ñu dajji ko mënuñu gis affaire bi ñu indi ay gobb gàbb gisuñu affaire bi ba waa ji noonu la deewee liggéeyatu tëdd rek tëdd rek xëy sangu tëdd xëy sangu tëdd ba feebar digal ko ci mu daal dee tey loolu mu ngi seen société ak yeneen yoo xam ne yéen ñi toog fi ku nekk dund nga benn wala gis nga benn wala dégg nga benn fan lañ jëm ba pare yu mel noonu ñu koy encouragé ci suñu dëkk kenn du ko tere da ngay gis léegi benn njabarkat jóge fële ñëw ubbi commencé gaa yi wër ko te sénégalais toll nañ ci njabar foo xam ne kenn du ci deltu ginnaaw même booy takk jabar sax da ngay ñëw ne man de dama bëgg takk jabar damaa bëgg nga seetal ma ndaw si booy tukki da ngaa naan seetal ma yoon wi ku jigéen ki day dem ne dañ may takk seetal ma waa ji dafa am place bu muy wut seetal ma ko man bu ma nekkoon jabarkat réussir naa bu yàgg chaque jour nit woo ma jala ne ma oustaz seetal ma lii waay wala ñuy seet li seet kay peesawul nga def listixaar dem julli ñaar rakk fatiha qul al kaafiruun fatiha qul allah soo su yotee nga def du'aul istixaara ma nadima man istasaara wa ma xaaba man istashaara yonent bi nee na kuy diisoo doo rëcc kuy istixaar doo rëccu istixaar mooy lan dem def ñaari ràkk yooyu ñaan yàlla démb benn waaye nee na ma man dafa am lu ma bëggoon dugg loolu yàqu ma ne ko sa istixaar baax na non oustaz ma ne ko déet baax na bul wax ndax bi ngay ñaan da nga ne woon yàlla lii su baaxee ci man baax ci sama adduna baax ci sama allaaxira naa ko am su bonee soril ma ko nga perte loolu kon kay baax na perto waaye da ngay gis dox loolu ba pare waaw xoolal ma xale bu jigéen bi ñu ne defal istixaar nga def xale bu jigéen bi amoo nga non c'est que booy bi trahir na ma quoi kon kay gëmatoo sa istixaar sa istixaar mooy su baaxee naa ko am bu ma sonn su bonee na ma sori nga déposé ay kayit liggéey ñu def la delloo la kayit yi kon kay baax na xam nga liggéey boobu boo ko amoon foo jëm ak la lu mu lay jural il faut ñu def attention faut ñu delloo suñu xel xam ne nun ay jullit lañ dafa am benn yoon woo xam ne ci la ñuy tegu suñ ko wàccee rek musiba naaru laay moo nuy dal comme tey nu ñu musiba dalee mbokki jullit yi ci tënk bu gàtt bu gaaw loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy jëlee ci sunu ñeenti aaya yi nga xam ne moom la ñuy jël tey ñu ñaan sunu boroom subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis ci ñeenti aaya yi ma bokk ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi qaala al-mala'u min qawmi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد دائر حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم barakallahu fiik jazakallahu xeer yeneen yàlla fayal yiw sunu boroom àdduna ne ma zaala siyaaq fi tafsili qisasi muusa maa firaun ay dañu ñu mbokk julit yi sunu boroom subhaanahu wa taala dinu nettali histoire muusa ak firawna ginnaaw ba muusa eggee ci firawna ne ko yàllaa ma yónni ndaw laa lu bàyyee ko ci sama boroom mu ne lan la la jox lan la la wax mu ne ko jox na ma ay preuve ay kéemtaan yuy wane ne moom moo ma yónni mu ne ko anamu mu sànni yat wi mu yoroon mu nekk jaan mu dugal loxo bi ci poos bi wala ci poqataan bi génne ko mu am lumière ba kenn mënatul gis Firawna daal di am doute daan ne mbooloo mi ko wër lu ngeen xam ci kii su ko gaa yi waxoon ab yonent la yàllaa ko yónni rek Firawna day nekk ju- day tuub waaye ñu ne ko kii politicien la sa siège bi lay xool tey loolu moo nu indil problème ci àdduna soo waxee rek ñu ne non ñii dañoo bëgg a islamiser réew mi de ñii dañoo bëgg ñii dañoo bëgg ñii dañoo bëgg kii dafa bëgg mu ne wa shahada al malau min qawmi firawna al ayatayni al azimatayni ñoo ñu naan gang ñoo ñu naan dak ay dak yi nga xam ne ñoo waroon firawna nga xam ne tey buñ ko ne woon ah dëgg la de ndax preuve yu mel nii moom dëgg dëgg dëgg njabarkat mënu ko am li ab yonent dong moo ko mën a génne suñ waxoon loolu firawna rek firawna tuub gëm Muusa ne yàllaa ko yónni waaye dañ ko ne am njabarkat la kii daa ñëw pour wàcce la pour yéeg loolu la nu yàlla di nettali ne qaala al mala qaala wax na al mala wax naa leen mala démb ak barki démb lan lay tekki mooy gang xam ngeen gang mooy ay dag mala mooy ñoo xam ne suñ duggee ci saal saal bi mën naa fees fa lay yem nombre trente personnes jëm suuf ñooñ nañ naan mala mën nga leen tudde ay ministre mën nga leen tudde ay député mën nga leen tudde ay sénateur mën nga leen tudde ay conseil al mala ñoom ñoo ko ne inna haada la saahirun kii am njabarkat la wala yàlla mu ne qaala wax na al mala mbooloo moomu min qawmi firawna mala boobu fan lañ bokk ci ay nitu firawna ay waa këram maanaam nationalité lan lañ yor égyptien fan lañ bokk ci nguur gi ay lan lañ ay kilifa ñu takk ay ndomba tànk yu ne keng yoo xam ne buur bi suy wax dañ koy dégg loolu mooy almala ñooñu nag lan lañ conseillé Firawna ba mu gisee kéemtaan yi ba mu gisee yet wi ñu sànni ko mu nekk yeew boo xam ne benn ŋaang baa ngi ci kaw suuf beneen ŋaang bi mu ngi kaw asamaan kenn xamul ni mu toll nag ngandaay ak bët yi ñu ne ko inna haza la sahirun alim kii njabarkat la waaye yemul rek ci nekk njabarkat mais expert la ci njabar gi boroom xam-xam la ci la sahirun doy na mais alim saa yoo déggee baatu alim mooy kooku loolu muy def expert la ci bu dee docteur la ñu ne docteur la ba pare ne alim mooy moo fi raw kon bañ ne Moussa njabarkat la ba pare li muy def xam na ko alim mooy ça veut dire que Égypte yëpp boo leen boolee kon Moussa moo leen raw inna haza la sahirun alim zu ilmin bi sihr xabiirum bi laysa mujarra mad'u nekkul rek kuñ naan ah kii day gisaanekat la xam nga gisaanekat gisaanekat mooy kuy seet ah njabarkat ak gisaanekat ku ëpp doole njabarkat moo gën a garaaw gisaanekat lañ naan kaahin njabarkat lañ naan saahir ñoom ñaar ñëpp dañoo weddi lislaam dañ leen war a rey beneen bi mooy yow mi nekk ab julit bis bu la yàlla nattoo nga dem ci seetkat mooy gisaane kat waxuma nga dem ci njabarkat de seetkat bi nañ jël ku ndaw ki nga dem ci kooku yor maire boobu nekk ci koñ bi yor petaaw yooyu di ko def ci layu bi ah ah nga dem ci moom ne ko man de damaa bëgg a tukki a bëgg nga seetal ma mu daal ne karaj kaaj sànni ne la yoon waa ngi nii de yoon wi de ubbeeku na te man li ma jaaxal mooy gis nga petaawkat yëpp ñoo bokk lu ñuy wax suñu benn dëkkandoo doon na seet ba bu ko fenloo mu ñëw ci moom ne ko seetal ma mu ne ah ah isaas tey da ngay seet ma ne ko waa seetal ma mu ne indi ñaar fukk ma génne ñaar fukk yi mu ne déet balaa ngay balaa ngay teg ñaar fukk yi da ngay da ngay ñaan sa soxla ma ne ko yow yàlla kii yal nañ ko fenloo daa teg mu ne nii ne lii de doom la ma ne ko kuy yaayam amaguma jabar di léegi doom bi kuy yaayam ne lii de xaalis la ma ne ko fu mu jógee mu ne gis nga yow kenn mun laa seetal ndax doo noppi ma ne ko indi sama ñaar fukk daa jël sama ñaar fukk dem sama yoon ñoom ñëpp benn boobu la ñuy wax lii leetar la lii ngoro la lii yoon bu ubbeeku la yoon waa ngi nii ah mais yéen seen diggante ak yàlla affaire yooyu ñuy def nii nii sànni loolu noo ciy gisee dara mais comme yow comme comme comme sa xel lañ lekk comme sa xel lañ lekk da ngaa kan nasu kii ngay kii kii di la seetal moom mënu seetal boppam.
oustaz man manoon naa mën nga ko de ah boo laajee primaire yi laa ko daan jàng ba mujj moom bu ko jàng ci man waaw ay kaa ci doon
wuy ma moom mii seet seet leen ñi dama leen di laaj benn laaj seet leen ñoo ñu yor petaaw yi ci koñ yëpp dañ leen a yërëm ah wala du seetal boppam moom léegi moom du seetal boppam yoon yi muy gis lu ko tere tukki xaalis bii muy gis lu tere mu jël xaalis bi wala mais mal asaf ñun tey dañoo feebara feebara feebara feebar ba oh da ngay yor 100000 wala nga yor 200000 nga ñëw waa ji ne la waaw man ngay mun naa laa seetal waaye foog nga jox ma 100000 nga jël 100000 yi jox ko moom affaire am baax na gisoon naa benn imam boo xam ne neen day faj yaaf xam nga lu muy faje yaaf kilo yàpp ak 1000 francs ah ma ne ko kii yow muus kii yow muus kilo yàpp la koy faje ak 1000 francs waa ngeen di sa waay ngoon ku nekk bu ma amoon kilo yàpp ak 1000 francs soo ñëwee rek eh, man de sama yaaf bi mu ne la dama nga jënd kilo yàpp ak 1000 francs su ma amee kilo yàpp 1000 francs yi du- du du togg soos bi waaye tamit yéen tamit non man daal Sénégal vraiment c'est que man li moom li li ma jaaxal mooy nit ñi lu tax ñu yomba nax dañoo gëmul yàlla
yu terre à terre lañ leen di naxee yu terre à terre yoo xam ne moo ngi nii yow naka nga mën a allahu akbar yow nga ñëw ci waa ji mu lay seetal yaa koy jox moom amul dara léegi moom yow kay dëgg dëgg dëgg dëgg yow lan moo tax yow moom du seetal boppam su fekkee moom dafay yóbbu nit ñi ñuy tukki sëñ bi kan moo bañ a tukki gisal ma la war a ah gisal ma la war a seetal
Euh, Yunus day wax mu ne mu ne boo ñëwee ci sëriñ bi mu lay seetal nga ne ko ah man de aw ma xaalis mu ne la mi añaani mbajju mi añaani radio mi añaani télé mi añaani écran plat mi aña munet ɗum dambal hol añ- hol gañɗo ɗum holmo añi mbajju holmo añi écran plat holmo añi portable mune boñeji waaji mu lay setal denan la man bañuma port sogane man noon temps yi nag yoruma dara mu ne la bañuma portable bañuma mbajju bañuma écran plat bañuma portable ah bu ko bañ mbaaji bu bees sànq ñu lem ko mu ngi nii kenn mosu koo sàngoo ñu indi la ko doo ko jël bu dee sax mos nañ koo sàngoo bu bees kan mooy bañ ñu ne la portable a ngi ni tablette kan mooy bañ ñu ne la écran plat ngi nii ku koy bañ léegi mu ne la boo amul xaalis indi loolu am nga ko sa kër allahu akbar mais li gën a ruslu mooy da ngay nekk kilifa jàng ba yegg ci yenn comboxtal yi nga ne damaa soxla dara au lieu nga dem jàpp te te te mbir yi dafa jege wallahi azim buñ ko tàmmoon buñ ko tàmmoon di ko def nga am soxla doo dem ci sàmba doo dem ci ma demba da ngay jàpp ñaari rakk nga julli sujjóot sa sujjóot bu mujj nga ñaan yàlla buñ ko doon tàmm suñu affaire yëpp rek law na waaye chaque jour rek foog nga dem ci benn waaye ne ko sang ma te nag li ci gën a dangereux mooy sénégalais bëggul lu yomb ñaanal ma ne la bismillah tàllal la loxo yi ñu jàng fatiha falaq ak naas ayatul kursi yu nii ngay def waa ji man ma dem ba foofu amul lu may wax lu dul fatiha falaq ak naas yi fatiha falaq ak naas yi ñu mag bis bu nekk mag ñu ngi koy def fi moom kay soo demee mu ne la dama ngay ni ma ginaar gu ñuul ak xeer ñett juróom-ñaari xeer yu ñuul indil ma na yu ñàng yooyu indil ma xar nga xar mu ñuul kukk benn melo nga bàyyi ba guddi deux heures du matin nga dem géej boo koy rey na jublu sow taataanal deret bi bu la kenn gis na nga sol yëre yu ñuul Ah, nga ne waa ji mooy ngand kenn du la wax lu ndaw nga def ko wala bàyyil ba trois heures du matin nga yëg ci gaaw sa digg kër nga yëg ci garab gi nga sangu waaye fexeel bu la kenn gis yooyu yu ngan yu yu ñàng yooyu rek lañ lay wax nga gëm ko waaye demal nga jàngal fatiha wala demal nga jàng yaasin wala boo sujotee ñaanal yàlla da nga naan moom benn waay ñëw ne benn benn waay ñaanal ma waaji ne ko bismillah ayatul kursi mu ne ko lii kese lii kese mooy ñaan waaji ne ko ah man de lii laa mën mooy doon waxuma lii waay te mu ne nga ñaanal ma ah waaw ñaanal ma jàngal ayatul kursi xam ngeen ayatul kursi lan la mun ayatul kursi lan la mënut parce que xam nga tax ñun mënul ci ñun dara parce que gëmoo ko li tax ayatul kursi du régler sa problème parce que gëmoo ko li tax alquran bi du régler sa problème parce que gëmoo ko waaye boo ko gëmoon mu régler ko li tax ñaari rakk yi du régler sa problème parce que gëmoo ko lan nga gëm mooy ay nag yu ñuul ay xar yu ñuul wala xar mu weex da ngay gis ke benn kër boo xam ne xar mu weex lañ fa bàyyi xar mi kenn du ko rey ah mu ngi ci sunu kër yi xar moo xam ne kenn du ko rey mu ngi ci kër yi di lambar lambari ba mu dee rek ñu daal di ko yenu yóbbu mbalit soo waxee ñu ne xar mi xarum sarax la te xar xar yooyu yàlla day nattu dañuy nganda nganda nganda ba nga xam ne allahu cey bu ñu leen rayoon ban du togg ko ndogu ku ci reer ba pare boo ñaanee rek ya waa ji yàlla may ko waaye déedéet xoola xar moom noonu lañ koy bàyyee ba mu dee ndax sénégalais yi la yàlla natt dañoo gëm njabar njabar ci seen deret la nekk dañoo gëm jinne dañoo gëm seytaane da ngay dégg ñu ne Dakar jinne ji ko moom nu mu tudd déedéet lëg daawur mbay gore ku ko moom jinne bi ko moom nu mu tudd moom lañ tuddee salub bi ah dee leen wax tur yi kan moo nekk tëngéej kan moo nekk Kaolack kan moo nekk fële maam Kumba Bang ji da- Sénégal gi yëpp ay jinne lañ ko dénk Penda Sarr moom moo nekk Fuuta c'est ça le problème dëkk bi yëpp ay jinne lañ ko dénk da ngay jékki-jékki ñu ne dañuy ñaanal Dakar non dañuy xërëmal Dakar jël nag bind ko ba mu fees ay xërëm muy dund ñu puus ko ci géej gi muy dugg di dugg ñu koy yóbbu ba kenn gis ko géej gi yóbbu ko nag bi di dund chaque jour ngeen gis ko fii ci télé bi ba pare ñu ne dañuy day jàng nañ di ay imaam ñoo koy jël jàng nañ di cinquante kaamil cinquante ka dañuy jël kaamil ne dañuy nax nit ñi quoi di di mbubboo kaamil bi mais problème bi du kaamil bi ñu jàng nag boobu ñu dugal ci géej gi lu ñu koy doyee Sénégal gi yëpp ay jinne la lii ma wax nii tur yi ma wax man maa ko créé yéen gi fekku leen ko fi xam nga ñooñu ay jinne lañ est-ce que xam nga ne yooyu ay jinne lañ wala li nga yaakaar ne ay nit lañ yooyu ñuy wax noonu ay la Daawar Mbay ay maam Kumba Bang ay Kumba Kastel ay jinne lañ ah am na ñuy gas suuf mosoon naa dégg Sénégal bi mu demee coupe du monde ba le passé benn borom xam-xam de mu ne li tax indiwuñu coupe bi bu ñu woowoon ñooñu rek ñooñu indil ñu coupe bi mu ne ñooñu la ñu fàtte tàggu bu ñu woowoon ñooñu ñooñu bu ñu dajalee seen doole rek seen pouvoir coupe bi dina ñëw ah xanaa xam leen ni ngeen amee jinne noonu la ñeneen ñi amee ay jinne da ngay yaakaar yéen rek am ay jinne jinne du Sénégal dong la ñu yem di li ngeen amee ay jinne noonu la yeneen dëkk yi amee ay jinne
benn Nigérien wax na moom.
Ah.
bu ngeen ambassade Nigéria. Dakar 92.
allahu akbar ñu ne ñun ñoo leen dàq xonk waaw loolu kay am na bu neexee defar nit fu mu làmm mu doon.
waaw eh, wallaay àdduna bi sénégalais yi ñoo ci gën a tuuti njabar mu ngoog eh, noonu yàlla taxaw qaala al mala min qawmi firawna gang ya nee nañ ca niti firawna yi nee nañ firawna kii inna haza la saahirun waaye alim kii day liñ koy waxal nii du ay waxu kese naan njabarkat la déedéet kii njabarkat bu mag la léegi nag lan mooy wax ji mooy yuridu an yuxrijakum min ardikum dégg nga dégg nga liñ ko tuumaal dégg nga liñ tuumaal Moussa loolu lan la mooy yuridu dafa namm moom Moussa ñëw naa ni yonent la yàllaa ko yónni li mu bëgg am na lu nekk ci ginnaawam mooy yuridu dafa bëgg an yuxrijakum mu génne leen min ardikum ci suuf si pouvoir bi la bëgg a nangu moo tax chaque jour nitu diine yi démb ak tey benn kese la saa yoo nee yàlla rek nga nekk nitu diine politicien bi mu ngi lay takkal benn ticket mu ngi lay jéem a diaboliser mi ngi lay jéem a gàkkal mi ngi lay jéem a tilimal pour wax ne ah gis ngeen kii lii muy wax ni yëpp pouvoir bi la bëgg dafa bëgg rek jiite réew mi mais effectivement nitu diine bu jiitewul bu jiitewul adduna bi adduna du jàkk xam nga tey lan moo tax l'islam mënta mënta nekk lan moo du ma wax sax adduna bi nañ jël Sénégal lan moo tax waa Sénégal tey mënuñoo dund diine lu tax mooy dañoo tàqalee diine ak adduna dañoo jël ay nit ne leen yéenay nitu àllaaxira yi ñooñu nag ñoom ñooy ñi perte ñi ñu jël ay nit ne leen yéen yéenay nitu adduna yi ñaari pouvoir yooyu ñu tàqale te waruñu ko woon tàqale benn kese la waroon doon nitu diine bi di ko jiite mu doog a jag waaye saa yuñ tàqalee comme niñ def nii jël nit ñi tuddee leen nitu àllaaxira jël nit ñi tuddee leen nitu àddina nitu àllaaxira yi mooy sëriñ si xam nga ñooñu moom dañ leen a nax xam nga dañ leen a nax ndax àllaaxira moomuñu ko munuñu fa tus suñ leen waxee yéen ay nitu àllaaxira ngeen toog leen fi ba àllaaxira nax nañ leen moo tax gaa yi jël lépp bàyyee leen ko ñii nag leen ñu ne leen yéen a moom adduna bi yéenay gouverner te adduna pour alaxira baax ci adduna lañ koy liggéeyee pour ñu dund suñu diine tey tey ñu nekk ay jullit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day fekk président bi ñu am mu nekk jullit gëm yàlla gëm lislaam su boobaa kaay kaay toog nii nga toog fi su boobaa mbir yi day dem waa kay waaye xoolal ndeysaan mbokki jullit yi tey dañoo jël sunu diine dénk ko ñoo xam ne diine yitteelu leen ñu jël sunu àdduna dénk ko ñoo xam ne àdduna yitteel àdduna moo leen ñor moo dañu àl ko moo tax day mënunoo nekk jullit lépp lu nu diine sant nañ ko def mu duñ ko mun def lépp lu nu diine araamal nañ ko bàyyi duñ ko mun a bàyyi parce que soo ko bàyyee nitu diine yi ne la non non loolu kenn du ko fi bàyyi démb laay seetaan journal ma gis Tunisie Tunisie fukki nit fukki nit est-ce que mën nañ fukk ñuy marche ñoom lu seen problème mooy amuñu fu ñu ndékki amuñu fu ñu añee dañoo tëj restaurant yi ñoom mënuñoo añ pourquoi fukki ay fukki nit ñaar fukki nit ne ñoom amuñu fu ñu añee restaurant yi dañ koo tëj bu ngeen añul dem leen ngeen toggi añ seen biir kër wooru leen léegi da ngeen bëgg jullit yi woor ba pare di leen jaay añ ah non dafa am réew yoo xam ne ñoom am nañ fulla ci loolu am nañ fulla nga defe ne tey Sénégal gii nga xam ne ndeysaan ñoo ngi ni quatre-vingt-quinze pour cent musulman tey boo demee léegi Sandaga wala nga dem marché nga wala nga dem Thiaroye nga fekk gars yi restaurant yi ñu ngi gaa yaa ngi añ ba suur boo tourné léegi ci mbedd mi démb la xaw ma tey bi may xëy ci su- suba démb la bi may xëy di dem école maa ngi dajeeg benn waaye ci fa ci suba gi de mu ngi teg sigaraatam di xëcc et puis da ngay gis kuy mooy yàlla ba pare naan maa tey da ngay gis kuy def lu bon ba pare au lieu wooroo sax nga nëbbatu nga bañ a gêner nit ñi nga bañ a féttirlu bu leen fàtte ne yonent bi nee na ab yahuuta ngi nii bu dugg aljanna lan moo tax mu dugg aljanna mooy dafa respecté weeru koor moo tax yàlla baal ko mu dugg aljanna respecté weeru koor keroog xaw ma ban chaîne la ci chaîne télévision yi la xaw ma TFM xaw ma Walfadjri reportage bu journaliste yi doon def daal di dëkk benn micro xale bu jigéen ñu ne ko weeru koor gi yow xanaa moo tax nga solo nii mu ne déedéet man duma sax jullit mari laa tudd waaye man duma sol lu bon ndax jigéen du sol lu bon oh sama yaram daw fi ma toog damaa ñaqatoo xepp xoolal mu ne man jigéen laa mais du ma sol lu bon man du ma sax jullit du weeru koor gee tax ma sol lii de déedéet man du ma sol lu bon parce que jigéen du sol lu bon jigéen dafa war a respecter boppam ma ne allahu akbar loolu day wax dëgg yàlla yaa ko wax waaye ñun noo ko moom tey may seetaan journal ma gis benn xale bu jigéen boo xam ne li mu sol damaa mujj zappe doo yàq sama koor man lii yëpp amul yére lii dañ ko kuppati ak bopp neen bopp neen ba fii yëpp buñ ko solul lu yére kooku sol na yére kooku sol na yére tey ñoo ngi nii sunu jigéen yi wala lu ñuy sol wala li ñuy def xoola yére yi ñuy sol mbokk yi ñun ñëpp gis nañ sunu jigéen ñi lu ñuy sol ñun ñëpp gis nañ dëkk bi li fi nekk li ñuy dund ñun ñëpp ko gis ñun ñëpp ko teg bët ngay gis ku woor ba ngoon démb lan la mbokk bi wax fi Grand Yoff nee na danoo woor ba ngoon di séddale ndogu yi di séddawaale bon bi ci suuf ah woor ba ngoon di séddale ndogu yi di- ak laxasu yàmbaa yi ci suuf allahu akbar waaw nee na woor ba ngoon di séddale ndogu yi di séddawaale yàmbaa bi ñooñu woor nañ ah waaye di damyee woor ba ngoon di damyee toog di damyee naan damay dàq koor di damyee da nga ñooñu dégguñu seen diine woor yendu ci grand place su damyee ah woor yendu ci tefes wo non wax dëgg yàlla am na ci ñun ñoo xam ne dañuy dañuy xiifal seen bopp rek moo tax yonente bi alayhi salaam yarhamukallah moo tax yonente bi ne rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi te li may wax rek weeru koor gi yaakaar naa tukki naa fi benn yoon xaw ma ñaari yoon ma ne waa Dakar santuñu yàlla waa Dakar santuñu yàlla ci yàlla xéewal gi mu leen defal soo balee gisuñu jant xool ni mu seddee soo génnee fii tàngaay ñaata 90 degré ñooñu dañuy war ba ngoon duñu lekk dañuy naan rek tëdd ndax tàngaay da ngay dem bi ñuy jënd glace donju glace 500 francs te dañ koy wër duñ ko gis ñii di ñaw ay saaku ci ay butéel di ci sotti ndox di gas ba mu xóot suul ko pour ngoonee ñu am lu naan lu sedd yow tey ji boo waree ba ngoon ku lay indil ndox mu sedd nga ne ko ba ba wooy looy def ni lu tàng laa soxla lu tàng te duñu woor wooru Dakar lu fi metti am na benn sëriñ bu jógee woon Touba dégg naa ñëw Dakar def fi ñetti fan ñibbi ci weeru koor daal di fay ñetti fan yi ñu ne ko waaw da ngaa dogoon mu ne Dak- ñetti fan yi ma def Dakar laay fay Dakar wooruñu. te xoolal fi ni mu mel xool tey tey mu ngi nii preuve baa ngi nii sedd guy la def da ngay woor ba ngoon doo naan te nit ñi duñu woor soo waxee ñu naan koor daa metteek koor nangam ak sàmba ak demba ak fekk ak kéeféer rek ak ñàkk gëm yàlla ak imaan bu rës donc nga fi nekk ak lan ak nguur ak nguur goo xam ne gëmuñu yàlla sonnuñu soññuñu nit ñi pour ñu gëm yàlla waaye xoolal Pakistan li fa am Pakistan boo fa woorul ba ñu fekk la ngay añ ci mbedd mi wala ngay tox gis ngeen ko dañ lay dóor ba dootoo toog sa taat yi la ñuy yàq dañ koy wol ba mu nooy nepp loolu c'est bien parce que boo woorul it wax dëgg yàlla yow mën nga am nga yaa moom sa bopp mais demal nga jënd sa lekk nga dugg sa biir néeg nga lekk ba pare nga génn mais déedéet da ngay gis ponkal moo xam ne sa waay su oto paanee moom kenn mën na koo puus mu taxaw ci digg mbedd mi di lekk soo ko ne waaye wooroo mu ne non non maa ngi ci weer wi nga ku ma ci koor gi maanaam koo ne ma yow yaa ngi woor wala wooro mu ne la maa ngi ci weer wi ça veut dire que mooy ci weer wi laa nekk mais nekkuma ci koor gi wala nga dégg mu ne temps yi damaa changé tariqa laa ngay changé tarixa koor ñëw kon nga yow tarixa ba tarixa ba sax gëmoo ko kon mbokki jullit yi nañu xam ne nun ay jullit lañ chaque jour danañ war a bàyyi xel suñu bopp ne yàlla subhanahu wa taala lii muy wax ni alquran bi pour nun la pour nun la moom Moussa bi mu leen waxee lii lépp ñoom lan lañ ko tont yuridu an yuxrijakum min ardikum moom de daf leen bëgg a génne ci seen suuf si a léegi nag gis nga firawna aaya bi moo lay wan ne firawna du yàlla daggit bi des ci aaya bi fa maza ta'murun lan ngeen di def asiru diisoo leen ak man bi ma taraw na sawaab lan ngeen gis moo baax fi xalli haazal mashakil haazal mushkila gis nga tey gaa yi buñ newoon firawna ah attention kii kat dëgg dëgg dëgg dëgg yàllaa ko yónni rek firaaw na day tuub waaye bu mu nee leen famasa taamurun ah lan ngeen di def yan pexe la ñuy def pour génn ci crise bi ñu ne ko comme njabarkat la dañuy yónnee ci dëkk bi njabarkat yi ñëw ñu concours ak moom mais rapidement foofu suñ ko ne woon dëgg-dëgg kii li muy wax ak li mu def du njabar nañ ko topp rek da ngay firaaw na day tuub wala ñu ne buur aayul yeneen bi ne yàlla bu nammalee bu nammalee defal buur wala président yiw bu yàlla nammalee defal buur yiw ah bu yàlla nammalee defal buur yiw yàlla da koy may ay conseil yu baax ay conseil yoo xam ne dañ ko naan lii moo lii lañ war a def waruñoo def lii lii moo baax instant yi lii lañ soxla instant yi lii moo war waaye bis boo amee ñoo xamante ne sa waaye dañ naan la yow kese la yaa fi nekk yaa fi aag doo seen moroom ah di la tàcc naan la yow la nga naan fañ fañ fañ fañ doo liggéey liggéey bu baax njiit dafa war a am yërmande njiit dafa war a yaatu njiit daa war a oyof njiit dafa war a suufe njiit dafa war a xam peuple am lan lan soxla Omar ibnul Xattaab bi mu génnee àdduna dafa am kenn ci saxaaba yi ku gént Omar yowmal xiyaam yàlla woo ko di ko àtte mu ngi gis Omar mu ngi taxaw ñàkk tooy xepp yor benn serviette di fomp su fompoo ba serviette bi tooy da koy wañ waa ji nee na ma ñëw ba ci Omar ma ne ko yow ñàkk bii nga ñàkk lan moo ko waral Omar daal di koy tontu ne ko bi ma jiitee jullit ñi dafa am benn pont bu nekkoon Irak xar yi di ko traversé am benn mbote boo xam ne benn pont moo ko jam ci pooba xar bi mbote bi daal di tatanos daal di dee mbote boobu la ma yàlla di laaj ne ma lu tax defaruma woon pont bi ba pont bi di jam mbote bi mbote laa wax de mbote ñun fii sunu hôpitaux yi amuñu lan lan la hôpital bi manqué woon ba gaa yi di dem Maroc di ko fa faji ndox ndox maa ngi nii ndox maa ngi nii ndox mi ndox mi bu ñu tëjee fële rek nu mu tuddati la de guerre waa Dakar dañuy dee moo tax ñun nan ñaan yàlla jàmm de bis bu ñu doon guerre ak benn pays Gambie rek bu ñu doon xeex ak wala ñuy xeex ak Mauritanie ñu ñëw ba la de guerre bombardé ko wala ñu ñëw ba Kër Massar bombardé tuyau bi waa Dakar yëpp ay dee te kenn du leen bombardé ndax duñ naan xoola stratégie dëkk bu toll ne Dakar bu toll ne Sénégal ah te xam nga bu naan Sénégal Dakar a tax population bi fi nekk mënuñu am ndox te ba la chaque jour lan mooy problème mooy ay tiwo tiwo moo paan tiwo benn tiwo bu ndaw tiwo bi sax waa Sénégal mënuñu ko defar il faut ñu woo expert yi France dinaa leen jox ay mbir yoo xamante ne fii la am yéen ñëpp ngeen koy dund waa Sénégal mënuñ ci dara immeuble Tamaro bi mu doon lakk ñan ñoo ko fay Pàkk Lambaay bi mu doon lakk ñan ñoo ko fay ah tuyau bi Kër Massar bi mu bënnee ku ñu ko defar waaw kon léegi ñun lan lañ mun ku feebar fii ñu ne fii eh, machine yi amuñu lan nañ ko yóbbu France léegi kon ñun fii lan la ñun fii lan la kon lu ñun lu ñu am ñu xam nga lu ñu am ay gaynde ay mbër ah ak ay càkkaaba ak ay musicien ñu ne loolu am nañ ko moom ak ay fecckat ak ay mannequin xaw ma yooyu moom macha allah ak ay théâtre kat loolu de am nañ ko ba fees del del Sénégal léegi journaliste yi sax ay théâtre kat lañ ndeysaan moo tax léegi yëf yëpp euh, yëf yëpp ñàkk fayda bu njëkk ba da nga naan suñu suñu benn sama benn papa mu ne bu njëkk ba bu ñu nee étudiant mu ne la kon ñun ñëpp dañu naan nii mu ne boobu boo jógee Fuuta nga ñëw Dakar nga ñibbi ñu ne kii étudiant la boo xëyee dëkk bi yëpp lay seetaan da ngay nelaw ba yow sol kilot seex sa boros teg fi sarvet naan nii ci kër gi ñu naan ndeysaan eh, mi ngelam ngel jooni ko étudiant ah léegi étudiant lan la amul valeur ndeysaan léegi dara moo am da même sax ministre même ministre même député même yooyu yëpp dafa amoon démb valeur mais tey amul benn njëriñ yooyu yëpp gis nga lu tax yàlla barke bi lay dindi barke bi barke bi amatul benn njëriñ kenn joxatu ko gëdd même policier sax policier stade bu toll nii benn policier moo ko daan garde bi stade bi ubbee policier baa ngi tudd bu xees ñi ñi may waxal fii xam nañ li may wax am na ñu nekk fii ci jàkka ji xam nañ li may wax stade bi ni mu toll benn policier moo ko daan garde mu ngi tudd bu xees bu taxawoon fii ñi ñi seen ko fële bu ne eh ñëpp dañuy jéggi tali bi Euh, xoolal tey ñaata la ñuy indi cinq camions la ñuy indi te booy mënuñu leen dara amul ah gis nga amatul njëriñ bu njëkk ba sax boo gisee kenn ci ñoom ne tëll da ngay daw barke bi la yàlla dindi barke dund bi la yàlla dindi dund bi la yàlla dindi barke dara amatul barke dara dara parce que nit ñi dañoo fetteerlu moo tax yàlla dindi barke ci dund gi xoola xaalis bi tey jii 10 000 yi ngay dégg 10 000 ay 10 000 la ma waa ji may bul ko wecceeku de bul jënd dara de booy jënd di ko perte moom kay na nga ko yor nii rek naan 10 000 10 000 booy jënd carte orange 1000 francs da ngay jékki-jékki naan waaw mais mais man yow sama kër bi mais yoroon naa ma sama kër yow sax damay xeex rek di xuloo damay jékki-jékki ñëw jëndalee ma dara ma dugal nii ndeke xawlal distance bi indi mburu indi café indi lii indi lii damay jékki ne nii eh yow sama xaalis bi fi kan ma ko jël ñu ne ma eh kenn jëlu fi dara joxe nga nangam joxe nga nangam may calculer ba mu des téeméer ma ne allahu akbar ci sama bopp laa koy njëkk a xool xaalis bi amul benn barke. amul benn njëriñ boo ci yoroon dara bul ko wecceeku bul jënd dara loolu nag lan moo ko waral mooy sori gi ñu sori yàlla suñ soree yàlla yàlla day karajal suñu dund wa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan danka kon firawna ba ko gaa yi waxee lii ne ko kii njabarkat la mu ne xool leen lan la ñuy def mu ne leen léegi kon mbir yi lan la xaalu ñu ne ko arjihu may ko dele mu dem këram toog am hilhu def ko ndànk wa axaahu ak frère am laa tataajjal alayhima bul yàkkamte ñoom ñaar seen mbir qabla ittixaasi ma yulzam min al ixtiyatat toog leen foofu bu leen tra bu leen traversé nit ñi di leen déranger ku dugg rek na toog yonent bi day tere nga dugg fekk ay nit toog nga leen di jëggati Firawna gaay na ko mayal Moussa délai may ko délai na dem këram toog léegi ñun nu ñuy def ñu yónni sunuy nit ci biir dëkk bi Égypte ni mu toll yëpp territoire bi Égypte instant yi ñu toll ñaata peuple bi ñaata lañ Égypte capitale bi moo ëpp Sénégal 80 millions ah capitale bi moo ëpp Sénégal lii dund capitale bi moo ñu ëpp allahu akbar loolu yëpp firawna ratise ko di xool ana njabarkat yu ngand yi ba mu am ville bu nekk ñett ñeent ñoom ñoom mu dajale leen ci benn salle allahu akbar ne leen damaa bëgg am na benn waaye bu fi ñëw njabarkat la damaa bëgg ngeen concours ak moom njabarkat yi commencé joxe seeni doléance ah lan mooy seen doléance buñ ko gañee loo ñuy jox mu ne leen dama leen def ay ministre wala ma def leen ay conseil ma def leen ay sénateur wala ma def leen ay conseil économique social wala ma def leen ay député wala ma def leen ngeen jege ma innakum la minal muqarrabin dama leen def ngeen jege ma ñu ne ko amul problème kon waa ji mën nga koo woo mën nga kaa woo waaw suñ ko defoon silencieux mooy gën qaalu arjihu may ko délai may ko temps wa axaahu ak frère am wa arsil yónnil ay nit fil madaini ci njënd yi ci ville yi mudunul mamlaka yónneel ci ville yi ci àll yi yi nga xam ne yëpp yow yaa ko gouverner yow Firawna fu nekk rek gouverneur ba fa nekk na jokkoo ak ña fa nekk ne leen da ngaa soxla njabarkat yi dëkk ba da ngaa soxla non non non Sénégal am na nu ñu koy waxee xoy yi da ngaa soxla xoy yi xoy saltige yi allahu akbar nañ ñëw yéen waa Dakar yi yéen waa Sénégal yéen koy wax saltige ak xoy yi li gën a ruslu mooy yenn saa yi nga toog nga dégg ñu ne saltige yi nee nañu allahu akbar sànq dama ubbi woon benn buntu ma tëb xanaa xamuloo boo gëmee waxi saltige wala nga gëm waxu xoy wala nga gëm waxu gisaanekat nga gëm ko laa wax de weddi nga li yàlla wàcce ci Muhammad waaw moo tax nga bàyyi tani de hadis boobu yonent bi neen man ara man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad am na beneen riwaaya bu mu ne soo demee ci njabarkat bi mu wax la bi ngay dem rek bi ngay dem eggagoo yaa ngi dem ci yoon bi nii foo jëm maa ngi dem ci gisaanekat bi fii ci géndal gi laa jëm géndal gi géndal gi yaa ngi dem yeggagoo soo julee 40 jours yàlla du ko nangu soo demee ba yegg mu wax la yow nag pare nga simmeeku nga ci lislaam bu yeboo nga tuubaat nekk jullit fii ñaata ci ñun ñooy dem géndal ñaata ci ñun ñooy dem ci gisaanekat yi ñaata ci ñun ñooy dem ci seetkat yi ñaata ci ñun ñooy dem ci xoy yi ñaata ci ñun ñooy dem ci selbendoom ñaata dégg nga sax fan yi ñu naan équipe nationale bi balaa ñuy dem foog ñu sang leen équipe nationale bi balaa ñuy lay dem foog ñu takk leen foog ñu yeew leen foog ñu foog ñu xam nga lan ngeen war a wax équipe nationale bi balaa ñuy dem da ngeen leen tere fo da ngeen leen tere génn guddi naa ni sàngara ak baali loolu ngeen leen waroon wax loolu da nga leen yàqal di sobe sobe kese ak bon kese
Tunisie war na doon ñu 3 0 waaw fii laa nekk di jiite juma fii fii fii jàkka ji ngeen toog fii minbar bi ma taxaw fii bunt bi ñu ubbi ko ma seen ay nit yu toog fii sol ay blouson ñoom ñëpp vendredi ma julli ba pare ba ven- ba nit ñi di ñi ma ne waaw mais borom blouson yi bi may xutba borom blouson yi ñu ne ma benn équipe bu Gambie ñoom ñoo ñëwoon di football ak équipe bi nekk fii Géejawaay vendredi jot ñu bàyyi football bi ñëw di julli yéen am ngeen lool ah ay joueurs yoo xam ne dañuy julli jumaa ba pare doog a football Tunisie Tunisie ñëw na football Tunisie ñëw na fii xaw ma Sénégal moo dem Tunisie dóor ñu 3-0 te ñoom dañoo wooroon maa nga foofu sax démb laay dégg benn waaye ñu naan moo tax ñu naan Idriss Seck Idriss Seck lu mu fi wax xoolal ki ne joueurs yi bu ñu woor dañuy liggéey kooku la nit ñi war a waxal ki ne ki ne joueurs yi bu ñu woor dañuy liggéey kooku la nit ñi war a waxal
yow kay wax wax na ba pare démb démb démb muy jag daggasante ak ak ak ju- benn journaliste bi non waruñu woor ndax waruñ di non subhanallah journaliste bi naan ko wa anta suumu xayrun lakum ah yàlla wa anta suumu xayrun lakum beneen bi mooy football coupe du monde mais moom jàngul loolu waaw ak Badr keroog Badr Badr Badr ban jour la woon Badr kañ la woon ci ban weer la woon ci ñaata fan fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor sahaaba yi woor jàkkaarloog yéeféeri Makka Quraysh jaas yi dal takbir allahu akbar laa ilaha illallah fekk dañoo woor yéen ngeen di football ngeen ne bunu woor ndax football jaamu yàlla la liggéey jaamu yàlla la joueurs yi dañuy sonn mën nañoo bañ a woor pour dañoo waroon bàyyi mbir mi rek jarul sax woon wax ku nekk ak sa sa pas-pas ki war a woor xam ne war a woor ki woorul ñu xam mu xam ne woorul waaye mu xam ne su weer yu dee day fay waaye buñ ko médiatiser gëm loo leen ne waru leen woor beneen caaxaankat léegi dégg da ngay gis koo xam ne fi day tabax na sama tabax bi dafa metti mënumaa woor ndax Ahmed Khalifa Niass nee na liggéey bu metti kenn du woor Badr ak liggéey lu gën a foor jihaad ak liggéey lu gën a foor mais mais Sénégal li ñu war a wax duñ ko wax chaque jour li mooy suñu problème dañuy bàyyi ba jaan ji romb ñuy dóor watat bi naan jaan jaa ngi nii ki ñu war a wax ñi ñu war a waxal waxuñoo ak ñoom dëgg dëgg fii ñi ñu war a waxal waxuñoo ak ñoom ñiy jalgati sharia bi yor seeni sharia rek sa façon aaya alquran bu la neex nga traduire ko nu la neex suñ la nee mees nga ni mees dara nekku ci xeesal nga ni dagan na na ndaw si rafet rek na népp maase bu mu am ay timpi tampa ku wax loolu nga ne yàlla ah nga ne raay jigéen fóon ko dara nekku ci ndax yàlla nee na illal lamama illal lamama yooyu dañ koy baalaate xoolal loolu nu ko nit di waxee ci ci ci télévision jullit ñëpp toog di ko dégg ah su ma raayee jigéen fóon ko lu ci desati ñu ne amoo bàkkaar ndax yàlla nee na loolu bàkkaar bu ndaw la illal lamama bal sax nee na mën ngaa fanaanoo jabaru jàmbur te doo am bàkkaar subhanallah ñu ne ko nu muy demee mu ne da ngaa tukki woon bo- boobu sax jàmm la nee na mën ngaa séy ak sa jabar ci biir jàkka ji xanaa lu nit bëgg a sëy bëgg a sëy bëgg a sëy amoo foo sëy doo jël sa jabar di ko dugal ci jàkk di sëy ak moom jàkk dafa sell lan lañ tuddee jàkka amakinul muqaddasa ci arab dañuy tere sax ku tasxiir baatu jàkk xam ngeen tasxiir ci arab jàkka mooy masjid soo koy tasxiir looy wax as dañ koy tere as téere alxuraan dañ koy tere as jullit kenn du ko wax kenn du tuutil yëfu islaam ndax yàlla nee na wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa al qulub kuy màggal màggal yëfi yàlla yi loolu dafa bokk ci ragal yàlla mooy màggal jàkk màggal alxuraan moo tax bu njëkk ba même foo yu arab boo gisoon mu naaw rek nga dégg paa yi ne jàppal jàppal foo yu alxuraan bi jël ko gas suul wala ñu jël ko lakk journal sax bu am arab laa wax dañ ko doon màggal Sénégal fii parce que noonu lañ yëkkati mais tey ah allahu akbar vraiment lépp lañ yàq tout dara léegi lañ gëmatul tous ndax lan ndax dajjaal yi nekk fii loolu yonent bi doon wax ne innama axaafu alaykum aimmatil mudillin li ma ragal ci yéen mooy ngeen am ay njiit yu leen di réeral chaque jour rek nga toilette ñëw toog ñu defa ne diine toilette la diine ay texte la soo waxee mu ne man damaa jàng d'accord waaye law kaana al ilmu min duni tuqaa sharafan la kaana xayru xalqillahi iblis su fekkoon ku am xam-xam ragal yàlla kon iblis ragal yàlla kenn du xool waa ji mais dañuy déglu li muy wax ñu ñu ay nit lañ li muy wax ci texte yi démb ki mu toogal moom li muy mag mag mag ak li muy am xam-xam yépp waa jaa ngi koy dajj ci benn aaya bu waxee ba pare rek waa ji ne ko wa anta suumu xayrun lakum yaa ngi ko doon seetaan su waxee ba pare rek booy bi ne ko wa anta suumu xayrun lakum yàlla ba muy wax ne da ngaa feebar wala da ngay tukki wala da ngay liggéey wala da ngay def nangam nga mun ngaa dog waaye nag lan la ca teg aaya ba di daanu wa anta suumu xayrun lakum loolu moo daaneel Idriss Seck barki démb jël benn baat wax ko ba pare te continuer wu aaya yi Sénégal chaque jour loolu mooy daaneel borom xam-xam yi da ngay jël benn aaya kese wala hadis bi nga dagg ko wala nga jël benn benn mot moom bi mu naan màkka bakka du màkka dafa continuer wul aaya bi bu continuer woon mu xam ne yàlla màkka lay wax c'est loolu mooy wax ji chaque jour même fii ci jàkka ji dama koy wax xale yi benn hadis kese du diine benn aaya kese du diine chaque jour ma leeral ko da ngaa bëgg a am sifatu salaatu nabi benn hadis kese du la ko jàngal foog nga am minimum 40 hadis yu lay won yonente bi nu mu jullee benn waaye dama ci def ak moom débat waa ju doy waar débat bi lan la woon te boobu du léegi de ci ana yu yàggee boobu takkaguma sax soxna maa ngi waaye ñu débat ci xabdu nii ma ne ko jullit dafa war a buy julli dafa war a xabdu mu ne ma du xabdu ci mbooloo lañ ko defoon bi coow li tàngee léegi ñu ne nañ arrêté suba ku nekk na nga indi say document yooyu wane ne jullit buy julli day xabdu ma ñëw ci kër gi jour ba jot ma yan booy yenn téere yi ñoom Seydou Wan ñoom Seydou Sow bi ngeen leen dégg ah ñoom Abdoul Ahad ñoom Pape Cheikh Silla bi ngeen di gis tey ma yan booyi téere yi ñu ñu ñu ñu jëm mbodd dë ma bokk yi booyi yenu ñiy bokk ñiy yenu ñu yegg si waa ji xam nga lu muy ni benn téere bu toll nii moom kenn cundum toog benn téere bu toll nii lay indi téere baa ngi tudd Zadul Muslim ñu ñëw ñu ne ma bismillah oustaz ma ne ko jëlal Buxaari mu ubbi ma ne ko hadis baa ngi mu ne waaw ma ne ko jëlal muslim ñu ubbi ma ne ko hadis baa ngi mu ne waaw ma ne ko jëlal abu daawuda jëlal nisaay jëlal ibnu maaja jëlal tirmisi jëlal ahmad ba ci imam malik ma ne ko imam waa sénégal ma ne ko léegi doy na jarul may ubbi yeneen téere yi ñu ne ko waa bismillah sawaay mu daal di ubbi hadis bi mooy hadis muusi usala bi yonent bi di jàngal waa ji boo yàqee julli na nga koy réparé mu ubbi hadis bi mu ne waajaa ngi nii dafa yàq julli gi bi mu yàqee julli yonent bi bi mu koy wax defaral julli gi da ko ne kàbbaral rukool sujootal waxu ko defal nii ma ne ko yow lii mooy sa doki lii mooy sa argument de que lii man soo ma waxoon lii du ma fi ñëw est-ce que hadis boo dafay wax na sifatu salaatu nabi waa ji yàq julli lan la yàq arkaan yi la yàq keno yi arkaan yi la yàq yi nga xam ne boo ko yàqee ci julli sa julli yàqu na mooy kàbbar bañ a taxaw rukoo bañ a siggi sujoot bañ a siggi comme niñ koy defee dóor dóor taf taf taf asalaamaaleykum léeg-léeg nga romb benn waaye ci mbedd mi muy julli mu lal si jàll allahu akbar taxaw taxaw allahu akbar nga dema dinaan simi àlaa luy mandi rek mu brûlé daal ni ko nii taf taf daal di toog ne salaamaaleykum ay ndeysaan sport nga ba pare waa ji mu ne ma waa ji bi mu yàqee julli yonente ko ne kàbbaral rukóol sujootal wax ko defal nii loolu nag mooy dajjaal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am na keneen koo xam xam nga lu mu wax te kilifa diine la de mu ne su ngeen gisee yonent bi yàlla waxu ko euh, su ngeen gisee yonent bi xabdu téere yi bind xabdu mooy li mu julli yoor loxo moo gën a bëri wala yooyu kenn mënu ko bind mu ne li mu julli julli yoor loxo daa bëri kenn mënu ko bind moo tax moo tax yi li mu def nii daa tuuti moo tax ñu bind ko seki seki Sénégal xam nga la mooy seen problème borom xam-xam yee leen di nax borom xam-xam yi ñoo leen wanul dëgg yàlla bi ñoo leen dul wax dëgg toog ci télé naan mees dagan na mees mees dagan na toog ci télé naan foon foon jigéen raay ko dara nekku ci loolu bàkkaar bu ndaw la rek illal la mama loolu la yàlla wax fanaano jabar jàmbur dagan na ñu ne ko nu muy demee mu ne da ngay tukki nga ñëw jaawale néegi jaawale sa jabar ak beneen non loolu loolu loolu koy non mais ñun ban monde lañ nekk
sol sa dalu xam-xam ah waaw ah ku sol sa daal xam ko de naka la nit di jaawale jabaram ak beneen jabar loolu lu ko nit di defee nu mu nekkee tey ci àdduna bi nu nekk fan ngeen mës a dégg ñu ne diw daa jaawale jabaram mës ngeen ko dégg diw daa jaawale jëkkëram loolu mooy waxi lan non ba pare ñuy su ko defee yooyu kenn du ko wax mais yi ñuy wax mooy yi ndaw ndawaan yoo xamante ne ah ki ko wax sax wax na ne baal leen ma damaa juum tuub naa ba pare loolu kay dëgg jeex na waaye léegi léegi nag nit ñi duñ ci nekk def ay débat fii kërërër di yuuxu fekk yoo li ñu war a wax waxuñu ko waaw li ñu war a wax waxuñu ko yii kii tey di tere nit ñi jaamu yàlla lañ war a waxal ne ko noppil yow waratoo fee wax léegi sax dafa dem ba nit ñi xam nañ ne day lépp su waxatee kenn du ci dóor xale nit ñi xam na ne léegi léppkat la te animateur yi li ñu ko jàppee mooy animateur la quoi day wax pour ñuy ree parce que xam na ne saa yu waxee def dégâts saa yu waxee rek def dégâts loolu nag baaxul ci kuñ naan kilifa diine la ndax nit ñi am na lu ñu lay xoolee soo waxee ëllëg caaxaankat yi mën nañ cee teg seen tànk ne yow yaa ko wax moo tax borom xam-xam dafa war a góorgóorlu ba lépp lu muy wax nit ñi suñ ko ne fu mu nekk mu ne moo ngi nii yàllaa ko wax waaye di jël aaya yi di ko tira di ko traduire nu mu leen neexee ah di ko yàq tey jii looloo tax Sénégal théâtre kat yeeg caaxaan kat yi ku jóg xas diine ku jóg xas diine bu ñu wooree ba ngoon gis ngeen li ñuy def ci télé bi lan la julli koor alxuraan i- imaam yooyu rek la ñuy wane imaam bi def na nangam kii doon jàng alxuraan def na nangam julli gi kii def na ci nangam koor gi kii def na ci nangam foog ñu góorgóorlu mbokk yi nekk ay dëgg-dëgg jullit bàyyi yenn caaxaan yi lan la ñu wax Firawna mooy may ko rek temm ko nga may ko ñu yónnee ci dëkk yi fil madaini haashirin ak li ko wër lépp rijalan yajma'una sahara ay nit ñoo xam ne dañuy dajale njabalkat yi nga xam ne ay expert lañ fi fanni sihr ñi nga xam ne dañoo peeg bépp xeetu njabar parce que njabar ay façon façon la njabar ay xeet la yu wuute yu bëree bëri léegi nag ki nga xam ne moom dafa peeg yëpp ñi peeg yëpp ñooñu lañ bëgg mu ngi mel ne rek médecine médecine bunt yu bëri la am na ñoo xam ne lan la ñuy faj am na ñoo xam ne lu ñuy faj am na ñoo xam ne lu ñuy faj am na ñoo xam ne lu ñuy faj am na loo xam ne lu ñuy faj ba nit jeex ki nga xam ne nag moo def lépp kooku nuñ koy tuddee généraliste loolu nag mooy njabarkat bu ngand nga xam ne lépp la peeg Firawna nag ñu mel noonu la- la recruter ñu ñëw dajeeg Moussa incha allah mbokk yi suñ buggee xam njabarkat yooyu ak Moussa fan la ñu mujjee ñu dajawaat fii suba yàlla ni yàlla may jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah